سرين سليمان سكن نينا ماغي واخ السلام عليكم ورحمه الله نكو نيب فاي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه ندفنا باي شيخ ني لا نكو دال تبارك الله سرين سليمان نيفا تبارك الله احسن الخالقين احسن الخالقين kontaan nañu bég nañu. kontaan nañu bég nañu. ñu ñaan yàlla. ñu ñaan yàlla. li nu fi tax a daje. li nu fi tax a daje. mooy ñaanal nitu yàlla. mooy ñaanal nitu yàlla. yàlla na ko yàlla nangu. wax leen amiin yàlla nañu ko yàlla nangul. bu nu ko yàlla nangulee. bu nu ko yàlla nangulee. waxuma moom ak ñam fa neel waxuma bàyyi Cheikh mi ñuy ñaanal mook ñam fa fekk ak ña ko fa fekk waaye ñoom lañuy delloo ñaan yi waaye ñoom ñëpp dañuy wàññeeku delloo nu ñaan bi bu ko defee jotaay bi dutu am perte bu ko defee du ci maa ngi nuyu Serigne Thiénaba Serigne Souleymane ne maa ngi nuyu Serigne Thiénaba wax naa leen ba tàyyi ni leen ne wax naa leen ba tàyyi nii leen نغني باي سيرين حسن سك نالوي باي سيرين حسن سك خليف جنرال تيانبا خليف جنرال تيانبا كي موي خليف جنرال تيجاني تيانبا خليف جنرال تيجاني تيانبا ييب نغي بو بي مامام دي نيك تيجان مي بي مامام دي نيك تيجان تيجان امول جي ريو تيجان امول جي ريو مامام وصفنا اد يو بري ني مامام وصفنا اد يو بري ñi feeñ ci tarixa bi door a feeñ ñi feeñ ci tarixa bi doog a feeñ ndax maamam Amari Ndaak ndax maam Ahmadu Ndaak waajur la la ci maam Borom Touba waajur la ci Seydi Hadji Malick waajur la ci Seydi Hadji Malick kon kii kon nee na sang bii toog di bàyyi seen ñaasan se ku mag ci tarixa bi kan moo ko mag ci tarixa bi xalif général Thiénaba xalif général nee xalif général lu bëgg koo yemale gi xalif général Tidiane Thiam. xalif général Tidiane Thiam. sa bàyyi sëriñ bi. nee bàyyi sang bi. sëñ Alpha Ba bi mu ëgsee. imam Alpha Ba. gouvernement bi bi ngeen see léegi. ci woyofam ak mbaaxam. ci woyofam ak mbaaxam. moo tax mu toog fee. moo tax mu daan doon toogee ne. waaye ñoo ngi koy jégalu. waaye ñoo ngi ko koy jégalu. fauteuil bi toog. fauteuil bii ñu toog. mu toog ci chaise bi. moom mu dem toog fee ca chaise ya. bi maam jógee Kajoor. ndax bi maam maam Ahmadou Ndack Seck jógee Kajoor. dem fekki Amadou Cheikh. dem fekki maam Amadou Cheikh. bi mu ëgsee. mais bi ñu ëgsee. dafa raam. dafa raam. di kaalaam. di kaalaam. foon loxoom bii rek bi. foon loxoom bii rek bi. booba la am ci moom la mu am. ne booba la amee ca moom Cheikh Amadou la mu am. xam nga gileem. mais xam nga gileem. bu gudd tërëy daa gudd tërëy bu yësul bu yësul kenn du ko mën a sët kenn du ko mën a sët nag moom yàllaa ngi wax ne afala yanzuruna ila al ibli nee na yàllaa ngi lay wax ne afala yanzuruna ila al ibli kayfa xuliqat wa ila samai kayfa rufiat wa ila sama kayfa rufiat kon kon yëkkatiku ne yëkkatiku amul solo boo boo wàccee rek. mais boo yàlla la yàlla lay yëkkati. wàcceem googee nag. wàcceem googee mboolem mboolem ñu ngi fekk sant seet. mboolem ñu ngi fekk sant seet. nangul nañ la ko. nangul la ko. yàlla yàlla na ko yàgg te wér. yàlla na nga fi yàgg te wér yow imam Alpha baax na ñëpp wax amiin. sëriñ bi nag. bàyyi sang bi nag yow. daf maa defal lu rëy. mais sëriñ Souleymane ne da nga maa defal lu rëy nag. dama bàyyi dama bàyyi Cheikh defaloon. mais dama bàyyi Cheikh defaloon nag moo ko defal. Lolo tax ma mel ci mom ni ma mel ci mom ne lolo tax ma mel ci mom ni ma mel ci mom dama tabax juma. ne dama tabax juma. Diko ubi. ubbi. ubi. ubbi. li ëpp ci cieken am gant ne li ëpp ci cieken am gant bañu ñoo ñëw. ne ñu bari ñëwuñu. bañu ñoo ñëw. ne bañu ñoo ñëw. way gant way dañoo am gant bay Cheikh ñew ne bay Cheikh ci bokkum ñew ak délégation ak délégation. yëkkati teranga jox ma yëkkati teranga jox ma. waxtaan fa waxtaan waxtaan fa waxtaan fu bégloo nit keroog laa ko jàpp. nee keroog laa jàpp nag Baye Cheikh. du ma ko bàyyi ba fekk. du ko bàyyi nag ba yàlla na yeex ba ma garab gii. nee garab gii. jàkkaarlu kër. seede na loolu. seede na loolu. bu dee garab gu sedd rek. nee bu dee garab gu sedd rek. sama daara ay mango fa ne. nee sama daara jii ci Medinatu Thiénaba. yemul ci sedd waaye fan ay garab bi Euh, mango yi dañuy meññ. nee mango ya dañuy ker yaa gën a sedd. ker yaa gën a sedd kon su ma ko fa bàyyee di toog fii. kon su ma ko fa bàyyee ñëw ci garab yi jàkkaarloo kër. mottali kóllëre la. ndax nekk fi. sëriñ góoram góoram yi def lu rëy. def lu robee bàyyam. nee keroog ba nu jébbalee way juróom boromam. ñu am ay fan. ñu dafa ñëw ni ma. nee daa ñëw ni nit mënut dund te amul kilifa. yaay sama lépp. ba pare doxal ko ba pare nak yamul ta wax ko rek da ko doxal ci zahir ci zahir ak ci bat ci bat kon ma ngi ñaan sama borom kon Serigne souleyman c'est comme mam Jibril neen ma ngi ñaan ci sama borom yalla na ngeen sut seen bàyyi aw fan yàlla ngeen sut seen bàyyi aw fan na ñëpp wax euh ci karama Baye Cheikh yi ngeen doon waxtaan Serigne souleyman ne ci karama ko Baye Cheikh yi ñu wax wax euh dañu dajé italy ma ak mom né dañu dajé italy ma ak Baye Cheikh su ma jógee sama hôtel. nee su ma jógee sama hôtel. ñëw seet si ko. ñëw seet si ko fi mu daal. benn waay bu tudd euh, Modou Touré la. nee benn waay. Ndiogu Touré. nee benn waay bu ñuy wax Ndiogu Touré. bàyyi liggéeyam. nee bàyyi liggéeyam. nekk ak Baye Cheikh. nekk ak Baye Cheikh rek. fa def. nee weer woo fa Baye ci ñëpp di ko sabote. ñëpp di ko yicc. bàyyi sa liggéey bi. ne ko ah bàyyi sa liggéey. topp sëriñ si. topp sëriñ si rek. sëriñ la mën a. sëriñ bi boo bàyyi sëriñ bi. wax jooju egsee ci Baye Cheikh ba wax jooju egsee ci Baye Cheikh. Baye Cheikh ni ko. Baye Cheikh ni ko. dinaa la defub sëriñ. dinaa la tubaab yi fi ne. njaago yi. njaago yi. jullit yi. mu neex leen. mu neex leen. mu leen. di dina dinañu la ñaan mu nangu. ci sunu kanam. ci sunu kanam laata weer wi mat. nee laata weer wi mat. njóogu ab sëriñ. njóogu far doonu sëriñ automatiquement. loolu loolu moo tax. nee loolu tax. sëriñ Ngout mii. sëriñ Ngout gay mii. mi bàyyi lépp. mi bàyyi lépp. am am na fu bàyyi Cheikh jaar ak mom mais ah am na fu bàyyi Cheikh jaar ak mom motax mo man lii mu man tey. motax tay mu man lii mu man dajale bokkam yep ñew wuy ci bisub baye Cheikh. kon. kon and ak ku baax. and ak ku baax. lolu dana taxa baax. Serigne souleyman ne dana taxa baax. baye bàyyi Serigne Assane nak sang bi nak baye Serigne Assane sek dama febar ne da febar rentrer hôpital. rentrer hôpital. sama docteur teyma ne da Serigne Souleymane hôpital sama docteur téye ma di ma faj bu baax di ma faj nag faj bu dal sama xel sama wëllëre bu ñu wax alaaji Mor Gueye ne sama wëllëre bu ñu wax alaaji ñëw ci hôpital bi ñëw ci hôpital bi joxe caution un million ne joxe fa moom caution un million ni maa ngi mbind mu bari ne maa ngi mbind mu bari ne moom moom kurus de yàlla may ijaaba yàlla may ijaaba moom xalif général بالله الذي لا نعم، اله الا سليمان نعم. بالله الذي لا اله الا هو لو سما واخ نخري نخري لو سما واخ نخري نخري موسوما جاب سي سما خول موسوما جاب سي سما خول باي سيري حسن سك باي سيري حسن سك خالو جنرال تيجاني تيانبا خالو جنرال تيجاني تيانبا سونو باي سونو خاري سونو سونو باي سونو خاري سونو سيري فما واختان لولا خالو كابيني اكو وير ني نعم، فما واختان لولا واخ léegi nag. léegi nag. sa jotaay bii. sa jotaay bii. jotaay bu am solo la. jotaay la bu am solo te noonu. sëriñ sëriñ Gora. sëriñ Gora. sëriñ Modou. sëriñ Modou. sëriñ Talla. sëriñ Ndiaga sëriñ Talla. sëriñ Ndiaga. sëriñ Ndiaga. ak jigéen ñi. ak seeni mag yu jigéen. ak euh, jarbaatu Baye Cheikh. ak jarbaatu Baye Cheikh yi. ñëpp. ñëpp. kenn ku ne tey mi ngi lay xoole Baye Cheikh. kenn ku ne tey jii mi ngi lay xoole seen ëtt way di ñun ñëpp la suñu xol set. ñun ñëpp la sama xol set. yàlla nga fi yàgg te yàlla nga fi yàgg te wér. lépp wax leen sama. waaw Baye Assane neen. ñaan gi ni Baye Assane yàlla na dia sama. waaw leneen li li ma ci li ma ciy sànni. nee li ma ciy sànni. mooy. moo di. Baye Cheikh. Baye Cheikh. ñëpp a ngi koy tagg. ñëpp a ngi tagg Baye Cheikh. mais jikko jee rafet. waaye jikko jee rafet. yàlla lu mu tàggee yonent bi. lu yàlla tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wa innaka la ala xuluqin. wa innaka la ala xuluqin azim. da nga ko defaree ba pare. mais ba mu defaree Seydina Muhammad ba pare. da ko ni dëgg-dëgg. da ko ni nag dëgg-dëgg. yaa tedd jikko. yaa tedd jikko. tedd jikko nag. mais tedd jikko mooy yaatu. mooy nga yaatu. muñ muñ. tabe tabe. dimbali. dimbali koo tane. jéggale. jéggale jëlale loolu moo indi jikko yu jikko yu baax yaa ngoog lii indi jikko dem ko takk. Baye Cheikh. mais Baye Cheikh. soxla su mu mës a dégg. soxla su mu mës a topp ci noppam. Euh, li li gën a garaaw ci jikko ne li gën a yéeme ci jikkoy Baye Cheikh. da gis koo xam bi muy ñëw ci moom. mooy da gis koo xam ne bu muy yegg seeg soxnaam ci Baye Cheikh. jàpp na ne balaa àgg jàpp ko tëj. moom bala moo yegg si ci Baye Cheikh sax ña koy jàpp tëj ko dinañ ko bu jubee Baye Cheikh. ne bu jubee Baye Cheikh. yàlla day xamal soxla jaam bu Baye Cheikh. ne yàlla dafay xamal Baye Cheikh soxla jaam bii. mu naa ko booy doxaan. ne bu ñëwee da koy daal di tooñ mu woowee mu ëndaale ko waxee mu ne ko toogal mu ne ko toogal. yooyu jikko. ne yooyu jikko bàyyi sa amee ko nag. mooy mooy mooy li am solo. mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy taxawaayu kër gi. nee mooy sëriñ bi canaba. sëriñ bi canaba. foo ko fekk. muy muy jafe. muy jafe. mbaa muy jaay maanaa. mbaa muy jaay maanaa. mbaa muy rëy rëylu. mbaa muy rëy rëylu. déedéet. ak a tëdd. déedéet. bokku bi canaba ne sang bi boo demoon. léegi sang bi toog boo ne. amul protocole. sëriñ góor a ne sëñ Souley sunu mag bëri ki ne bàyyi aas ci buntu kër ne foofa laa ko lalal moo toog ci basan gi ma di ko attaaya ci buntu kër gi jàkkaarloo route nationale bi ba deux heures ñee ñaari sa oh. rek mooy defar ak mbokk kon yal na yàlla gudd fan. nag yàlla na gudd fan wax leen amiin. sëñ sëñ sëñ Murtada. nee sëñ suñu doom ju baax ji te yaru. suñu ah sëñ Papa Murtada ma dikkee. nee suñu doom ju baax ji te yaru. ànd ak bàyyam bee sëriñ Madické. nee ànd yër téere yi ba am lu mu xam. yër téere yi moom itam ba am lu mu xam. ànd ak njaboot bi. ànd ak njaboot bi yëpp. ay rakam yëpp. ànd nañu ak sëriñ Murtada. ñëw ci bis bi. nee ñëw ci bis bi. Eh, na nga seede ni. sëriñ bi kon na nga seede ni daal sa sët bii. njaboot gi njaboot gi. ak nun ñëpp ak nun ñëpp. ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bi la suñu borom boo demee sama néeg fii ci Thiénaba. Eh, mbokk yi bu ngeen demee néeg Serigne Souleymane Seck fii ci Thiénaba. sa photo rek moo fa nekk. sëriñ bi nee na photo xalifa bi Baye Assane bi doom moo fa nekk. déedéet sëñ Pape Seck. ah nee na sëñ Pape Mourtada sama doom ji photo am bu kan ah, lal ma maye moo tiim éponge. nee nee far naa la tiim. Baye <laughs> eh, Souleymane Ba. gis nga loolu boo gisee ma def ko. mais boo gisee nag ma def lii. dama la xam. jël sa photo mu may ci dama la xam. gis nga nit bu amee yar. gis nga nit bu yaroo. am teggin am teggin am sutura am sutura yàkkamtiwul yàkkamtiwul tabe di góorgóorlu ci ci diine kenn du dégg sa làmmañ lu ñaaw kenn du dégg ci sa làmmañ lu safaan ñi la jur ak ñi nga mag ak ñi nga mag ak ñi la mag ak ñi la mag ak taalibe yi yow ko taalibe boo xool sa taalibe mais taalibe boo xool jàppal ni sa taalibe ndax euh, li ñuy xool li ñu bëgg cib sëriñ ndax li ñu bëgg cib sëriñ yàlla def na daje ci yow yàlla yàlla barkeel kon yàlla yàlla guddal sa fan yow sëriñ Papa Mourtada Madické li bàyyi Serigne Assane daal Serigne Souleymane nee na. famille bi kenn manqué wul. nee bi kenn manqué waa kër Mamour Poye yi. waa kër Mamour Poye yi daanaka seen kàddu. nii ñu ñëwee fii. nii ñu ñëwee ci bis bii. ak yeneen délégation yi. ak délégation Serigne Mboup Gaye ak yi leen jiit yëpp. ñu ngi ñaan ci sa barke. ñu ngi ñaan ci sa barke. yàlla faj aajo yëpp. yal na yàlla faj aajo yi ñëpp dañuy ko amee. yokk sutura yi. yal na yàlla yokk sutura yi. zahir ak baatin. zahir ak baatin. waa kër Thierno Alassane Sall yi. waa kër Thierno Alassane Sall bi mu nekkee ministre ci gouvernement bi. bi mu nekkee ministre ci gouvernement bi. Macky Sall dafa am lu mu bëggoon lu ko jafe. ne président Macky Sall dafa bëggoon lu ko xaw a jafe. te loola maa ca man Serigne Souleymane maa ca man dara. ma dem réglé ko. nee ma dem réglé ko. mu yebal Omar Youm. mu yebal Omar Youm. Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall. Augustin Tine. Augustin Tine. Euh, ak ak ak ak ñeneen. ak ñeneen. bis bi ñu war a dajee. mais bis bi pour ay woo fay. pour nekk benn. ñooñu nekk benn. Thierno ñëw. ñëw. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. Omar ni ma. Omar Youm ngi toog. Baye Jibé sama doom ngi toog. président nee na. ñii. ñun ne la mu yor. ku waxal loo ci bëgg. waxal loo ci bëgg. ñu defal la ko. man man man mi laay wax rek. man man yor. na lamp yi gën a leer. na lamp yi gën a leer. na jàll ba jéggi raay. na jàll loolu laa bëgg. laa bëgg mu jël nopp. nee mu jël nopp. damaa toog ba yàgg rek. nee damaa toog ba yàgg. ku sant Cissé. ni ministre bee ma yebal. nee nga wax loo bëgg ma defal. la ma ko wax lépp mu defal. la kon Thierno Alassane. kilifa la. nit ku dëgg. dëgg la. seytaane président. waaye du ak dëngte. dëng. du ak jubati. kilifa dëgg la. xamoon naa bàyyam bu baax. xamoon naa waajuram ni meloon ak Baye Cheikh. gis naa ak Baye Cheikh. mel koog sëñ Canaba. mel koog ak sëñ bi. fii daal am na fi place. fii am na fi place. Sénégal na ko yàlla sàmm. te kii ko fi nekkal. nee suñu rakk la. suñu bàyyi bokkul léegi. muy sëñ Aliou Niang mii. mii. te loxoom set na. te loxoom yal na yàlla yokk si doon. yal As na. Baye As. mbooloo mi dalay poñe. mbooloo mi mbooloo mi banque gi métti. sëñ man nee seet rëy. dama dama dama war a ñëw ci jàng yi. a ñëw def ci lu rëy. def ci lu rëy xëy yow li ma yor li ma. kon nag Baye ñu ngi sant yàlla bu baax. sa doom ne ñu ngi sant yàlla bu baax. yàlla ngi ñuy suturaal. yàlla ngi ñuy suturaal itam. waaye ne ñu defal xaas. waaye danoo bëgg nga defal mu xaas tey. defal ko njaboot bi. defal ko njaboot bii jàkkaarloo ak yow di ñu ñi nga fi fekk. ñi nga fi ñu dem. ak ñi nga fekk ñu dem. ak ñi bëggoon a ñëw. a ñëpp balaa déwén balaa déwén kenn ku ne yokk kenn ku ne yàlla nga yokk ab tijaan nag ab tijaan gaawul ci gaawul ci joxe addiye mais gaawul ci joxe addiye waaye yéen xam ne ne ab tijaan gaawul ci joxe addiye waaye nag yéen a waaye sëñ yow ñaan sëñ bi daal la ñuy toog moom ko ñaanal ko ñaan ci borom am ko ko am na yi kon ko bay Tidiane bant yu ci la ko jox kenn ku ne ci ñoom bu alquran xëyoon ni mër ñu gontu defar loolu dañ la danoo bay jàmme yaay juróomeelu doom bi naan xam nga kenn mënta lim doon yi sax bay sama tiyaan yi te boole wula ci déedéet yàgguwul sàkk ma laa sëñ doon doonu sa doon sa mi ngi len di nuyu di len siar bu baax soxna Aminta sek, Aminta silo. bala serigne bi nuyu teranga ya nga na ba kayor ñu wax ko say ma sha Allah nga ñu fekk fa garabu teranga bu sunu mam ndak fal mam sefi suxat ko mag ya coro suxat ko mu mag soxna ko di suuxal ko mu mag nga fekk fa sa nawle di doom ci muy soxna Ndey Jóob mu soxal ko mu mag saa yoo xëyee xëpp ca paanu dox jërëjëf Seck bokk jullit yi Serigne Mouhamadou Moutalla ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax ci baat bi nu yàlla tànnal ñun jullit te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dolli santaat yàlla ci jotaay bi ñu toog julli ci njool makka alayhi salaatu wassalaam di tëbb ci fay bay képp sunu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Serif radiyallahu taala an bokki jullit yi sëñ Moutalla ngi leen nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi maamam sëriñ Assane Seck xalif généralu Tijaanu Canaba nii ko borom xaas waxe borom xaas la xool bi daal rafet sëñ ma di diggee ko wax sa baay. ñu bu baax a baax. kon ñu ngi koy nuy bu baax. di ko siyaare bu baax. di ko siyaar bu baax. jox ko wàccuwaayam. wàccuwaay bi ka yàlla jox. rafetlu ak teewaayam. ak teewaayam. di ko ñaanal yàlla. di ko ñaanal yàlla. gën a guddal aw fanam. wi. yàlla dolli wér gi. yàlla yokk ijaab bi yàlla mottali yéene yi yan na ko yàlla def ami ñëpp ñu ngi ko koy ñaanal ñëpp a ngi koy ñaanal taxawaay yi na ko tey taxawaay yi matte na ko yéene ji mate na ko yéene ji mate ngëm gi mate na ko kon li des rek kon li des mooy ñaanal ko yàlla mooy ñaanal ko yàlla mu sottalil ko boppam. mu sottal ko boppam ñu bokk ko fekk. ndax bu sottee ñun ñëpp la amee. ndax bu yéene leen wépp yiw. kon loolu ñu ngi ko sant la yàlla. kon loolu sëñ Moutala na ñu ko ci sant la yàlla. di ñaan yàlla rek. yàlla rek. yàlla boole ñu mottali ñu. yàlla yàlla boole mottali ñu ñun ñëpp. kaddu yi xam naa ne kaddu teraanga rek. kaddu yi sëñ góor kaddu teraanga la waaye kenn ku ne xam nañu sunu maam. waaye kenn ku ne xam nañu sunu maam. toogaay bi day yàgg ci moom. toogaay bi day yàgg ci moom. te itam ay ittee ngi ci kanam. te it ngi ci kanamam. kon kàddu gi kon lu nu yëkkati kàddu gi. ñu doyloo ko. nanu ko bokk doyloo. te xam ne barkeelu du tuuti. te xam ne barkeelu du tuuti. ñu ngi nuyu ñëpp. sëriñ bi mi ngi nuyu way juru boppam sëriñ Souleymane borom xaas di rafetlu taxawaayam ci njaboot di rafetlu taxawaayam ci njaboot gi. waaw kenn ku ne xam na digganteem ak njabootu Baye Baye Cheikh. kenn ku nekk xam nga digganteem ak njabootu Baye Cheikh ma Tidiane. waaw muy diggante boo xam bo muy diggante ni. fa tabaarakallahu. fa tabaarakallahu. diggante bu rafet rafet. diggante la bu rafet rafet. lépp nag cofeel. lépp ak cofeel. ak mbëggeel. ak mbëggeel. Ah, euh, ak sàmm ak mbok ak sàmm mbok moom moo ko lal. moo ko lal. Ah, fa tabarakallahu fa tabarakallahu naa ne bu duggee canaba. yaakaar naa bu duggee canaba. Ah, ku ko soxla. ku boo ñëwee fi nga ci taatu niim gi fi nga fekk mu toog fi lay aña sax. mu uuf ay rakkam. mu uuf waxtaan ak ay rakkam. ci àddina. di leen yee ci àddina bu yàqu bi waaye boole ko di leen ñaanal. waaye boole ko di leen ñaanal yàlla. te itam noonu mu koy defeek ñoom. te it noonu mu koy defee ñoom moom boroom xaas. noonu la koy defeek ay doomam. noonu la koy defee ak doomi boppam. ma man koo seede sama diggante ma man koo seede man mii ci mag ciy doomam seede ko sama digg moom. yenn saa mu neex ko. saa mu toog ba mu neex ko. mu ñëw Thiénaba Kajoor indaale méewu gileem bu bari toog ak ñun toog ak yu bari jox yëkkati teraanga yu jox conseiller ñu daaj ñuy conseiller ah, ñaanal ñu bu baax ñaanal ñu baax kon kilifa bu baax a baax kon kilifa la gu baax ah, man nag maa ngi ko mii woon man maa ngi ko woon daaray kokki yàlla dogal mu ñëwoon yàlla dogal mu ñëwoon kokki ah, fekk ñu ca daara ja mu bëgg ñu lool mu bëgg ñu lool. bàyyi ñu xel lool bàyyi ñu xel lool. yëkkati teraanga yu bari jox ñu. yëkkati teraanga yu bari jox booba léegi. ba léegi. suñu diggante ak moom suñu digg ak moom. cofeel gi day yokk rek cofeel gi day yokk rek. yàlla yàlla guddal fan wi. yàlla yàlla guddal wi. yàlla dolli wér gi. yàlla dolli suture bi. noonu la ñuy nuyoo waa Thiénaba gépp. noonu lan ko toppee nuyu kuy bàyyi topp ko nuyu kuy maam. topp ko nuyu koy rak ak bàjjan jotaay bee xate sëriñ baa ngi nuyu woy juru boppam soxna Xadi Booy ak soxna Ayda Mbeen Booy ak bàjjanam soxna nooy sekk ci biir kër ñu ngi koy nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér gi yaram njaboot gi xam ne moom lañ am gi ngeen am ak Baye Cheikh Ahmad Tidiane yi. ñu mën koo commencé ko ci sëñ Modou. ñu mën koo commencé ci lim ci sëñ Modou ma ca àll ba. ba ci sëñ Gora. ba ci sëñ Gora mii di doomi boppam. Baye Ndiaga ñoom. ak Baye Ndiaga Maxtaar boroom yar bi. ak soxna Ndogoy seen mag. ak soxna Ndogoy Mbay seen mag. ak Baye Talla ñoom. ak Baye xam-xam bi. ñoom ñëpp ñu baa ngi leen di nuyu. mu ngi leen di siyaar jox leen wàccuwaay bi leen yàlla jox waaye di rafetlu seeni taxawaay seen taxawaay ci njaboot seen taxawaay ci njaboot ni taxawee ak ni ngeen taxawee ci seen ginnaaw baay ci seen ginnaaw baay muy taxawaay yu rafet la ah, muy taxawaay yu rafet moo tax ni ñi ñëw mooy taxawaay boo xam dafa ànd ak jom ju sëkk la seen baay bëggoon ci baax lépp ngeen bëgg fam tegoon tànkam ngeen jël seeni tànk teg ca kenn ku xam na ni bis bi kenn ku ne xam na ni bis bi ginnaaw ndimbalal yàlla ginnaaw ndimbalal yàlla jom jom yaakaar naa ni yaakaar naa ni ah, mooy wóotu bis bu mel nii mooy wóotu bis bu mel nii waaye ku amul jom waaye bis bu mel nii koo bañ a ñemee woo. ah man nga koo bañ a ñemee woote de. waaye bëgg seen baay. waaye bëgg seen baay. ak gëm seen baay. ak gëm seen baay. ak delloo njukkal seen baay. ak delloo njukkal seen baay. ak bëgg a xamal nit seen baay. ak bëgg a xamal ñi kan mooy seen baay. Ah, jukko yu rafet yàlla defoon ci moom. jukko yu yàlla defoon ci Baye Cheikh Ahmed Tidiane. nga xam ne koo lim. nga xam ne kenn kenn mënu koo lim ci bari. ku lim ngay lim yaa nga ca rek da lim la nga xam. des nga bàyyi. ya ca des nga bàyyi. Ah, yooyu dajale nit ñi ñu koy xam. dafa am yooyu dajale nit ñi ñu koy xam man koo roy dafa am njariñ. Ah, kon Baye Cheikh jikko yu tedd la yàlla. kon Baye Cheikh ma Tidiane yi yu tedd ya yàlla defon ci moom. Ah, mu amoon njariñ lool ci famille bi. njariñam moom njariñal Baye Cheikh ma Tidiane. foo ko takk rek ci réew mi passé na ko. itteem ci doomu aadama yi. taxawu ko taxawu doomu aadama ba ay aajoom faju foo ko takk ci man-man rek wees na ko ak bëgg doomu adama yëpp foo ko takk wees na ak tabam foo ko takk wees na xam-xamam bu rafet ak ci poosam nag yooyu yëpp Baay Seex Ahmad da cee tabe woon kon yu jikko yu baax yu mel noonu ñu xam ci seen way juru bax wi njabot gi tok suko defé ñu leen koy jangal ñu war ko roy ci mom lolu da am solo señ goor kon ñu ngi ñaanal bay Cheikh Ahmed Tidiane yalla yal na leeram amin yalla yalla tass na ci barkem amin njabotam gi yal na yalla yàlla sàmm yal yalla leen yalla taxawu yal na yàlla suturaal leen. Ah, ay jàmbaar lañu de. ay jàmbaar lañu de. ñun de suñu digg ak ñoom. la leen ci seen baay daan la leen ci seen baay digaloon. lépp lu koy rafetal lépp luy rafetal diggante bi. Ah, ñoom ña nga ca de. Ah, li ñu war a def ñu koy def. li ñu war a def ci baax ñu ngi koy def. li ñu war a wax ci baax ñu ngi koy wax. li ñu war a taxawee ci baax ñu ngi koy taxawee. kon ñu ngi dellu di leen jaajëfal. di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla sunu yaay soxna Xadi Booy moom ñëw na démb ànd ak doomam soxna Aminta si la sek moom it fa tabaarakallahu mi ngi leen di sant mi ngi leen di jaajëfal mi ngi leen di ñaanal yàlla rafetlu seen taxawaay ci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 bëggee ba aljana